asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV kon niñ koy defee rek à chaque fois di leen bëggee kon ni ñu wax rek yéen yéenay suñu lépp te lépp loo leen bëgg dinañ ko def tey naka ñu ñëw fii ci Lansar ñëw seet si koo xamante ni champion la ndaanaan la mu nekk koo xamante ni boo nee Lansar rek turam day dem force mu nekk xale boo xamante ni ba mu duggee ci làmb mën nañu wax ne yàgg na yàggul 2004 ñëpp nag xam parcours bu mu def parcours boo xam xamante ni macha allah ndax tey ku ne 27 combats ne 17 victoire ne 10 défaites rek kooku du coomo tey nag ñoom contentement ñoo seet si ko mu nekk na koo xamante ni suñu frère nekk suñu xarit nekk suñu lépp muy le professeur de l'ANSAR Tidiane Faye tey moom laa dalal Tidiane maa ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum gannaaw bañ sant yàlla julli suma xam sant suñu ñaari waajur mu ngi leen di nuyu wax dëgg yàlla di leen siyaar leen baalu àq ci weeru koor bu ñu jugee di baal ak ñëpp di ñaan jàmm si réew mi ndax ku ne xam na ne fi mu nii nii euh, li nga xam ne moom mooy natt bi nga xam moo dal ñëpp moom mooy coronavirus bi nii muy Covid bi ñu ñaan yàlla mi nga xam ne moom moo mën te moom rek moo am kàttan moom lay neex mu génne fi ni ko neexee ñu ngi koy ñaan mu génne ko fi ci jàmm ba ñëpp nekkaat activité ndax ku ne xam na ne fi mu nii nii lépp a taxaw suñ côté. buñ dee sax bay wax ne suñ côté sax day day mel la ñu fit waaye mun nañ àdduna bi dañoo taxaw àdduna bi dañoo nekk si jafe-jafe fi mu nii ndax mbas mi nii ñaan yàlla yàlla suñu borom jëlee ko fi bu baax a baax baax te baalu ak ñëpp si weer koor bu ñu jógee di ñaanal ñëpp jàmm wax dëgg yàlla du ñaanal axlu làmb tamit jàmm bañ nekkaat activités yu nekkoon incha allah bi di la bëggee yow di di bëggee waa euh, wasaare TV ma leen di seeral bu baax nag wax dëgg yàlla. ndax ma soxna si moom yàgg nañ xamante nañ <laughs> waaw siyaar ñu baax daal <laughs> <laughs> ndeysaan ko ni mu ko waxee mu nekk ku baax koo xam xamante ni wax dëgg yàlla suñu waay la dañ koy safoo nag bu baax a baax parce que dañ ko doon seetaan mu nekk nag mbër bu disponible macha allah ni mel noonu la mel moo tax dañu am contentement pour waxtaan ak ñii nga xamante ni ñoom ñooy làmb Tidiane nga nekk séeréer dañoo bëgg nag nga ñëw ci li nga xamante ni tey Tidiane Faye tey boo ma doon wax kat mooy Tidiane Faye nga defal ñu sa parcours pour ñi nga xamante ni ñoom lay suivre sur Wassare Lamb Wassare TV waaw sant yàlla rek di di di nuyu sama mbokku séeréer fogale séeréer mi tijaan fay naa sim naa nun jookaanu nu njal laya koy nu nga nu nu ñaan no jirleeg ref na nu àdduna fe roog a wattin meek i mbaat ndef indi fop no jam di siyaare wax dëgg yàlla fop sama mbokku séeréer yëpp waa soo ma waxee loolu naa ci sawar ndax ku ne xam ne làmb xaw nañ ci yàgg diir bu comme li nga expliqué sànq rek 2003 2004 lañ ci dugg nekkoon mécanicien di si dugg di jéngu ndànk-ndànk ba virus bi dugg ñu ñu commencé ko si Mbabatou Max ñu koy nuyu de passage muy père Max ak suñu président Aline Diop ah, ah, kii nii Cheikh Niang ki nga xam ne mooy Aline Diop suñu président écurie kii nii écurie entraîneur écurie ak père Moussa mi nga xam mooy suñu entraîneur boxe mun nañu fii lañu yaroo Lamsar fii nii mais grand fi lañ juddoo yaroo dëkk ba. bi ñu jógee dëkk ba lañ ñëw fii jàng si métier virus bi nag fii la ñu duggee mais ku ñu xam séeréer dañu xam ne carrément cosaanam làmb la dëkk bi ma dëkk di Djilor ñëpp xam nañ ko ci cosaan may nuyu ma leen nuyu de passage ñoom ñëpp daal. Mhm. bëri fan la fee ñëw da nga daan ci plage wala da nga am koo xam te ne ko doon gis muy bëri mu neex la wala que ne da am famille boo xam te ne dañuy bëri. waa xam nga ñun moom boo seetee suñuy maam rek na am ñoo xam ñàkkuñu ci doon bëri ba pare ñun bi ñu nekk suñu dëkk fële ku mel ni Yékini am na ñu mu doon bëreel ñu bëri ku mel ni adolin daan nañ bëri ñoom foofu noonu dañ doon ñëw di seetaan boobu li nekk a tuut li nekk lu tuuti man sama turandoo ma koy ñaanal yàlla na si kawam suñ kër gi dëkkoon lan moo nekkoon président dëkk ba maanaam foofu lañ doon toggee reeru mbëri yàgg naa di yóbbu yóbbul magu maama Lamine mi ngay dégg du maama Lamine mii nag mais maama Lamine mag ba mhm. ñoom bu ñëwoon di bëri sa foofu noonu man yàgg naa di leen di yóbbul foofu noonu reer ñu ngi boole ñu ne parce que dama amoon amul làmb bi mu nekk ay booy suñ dee fu noonu làmb ji dañuy dañuy jàpp dugal ñu si mais xàmme nañ leen bu baax bu noonu parce que boobu noonu ay 12 ans 11 ans la ñuy am nekk ay xale yu ndaw waaw. Mhm. Euh, dëkk ba nga yaroo fa nga defee sa mais fi nga àggale sa enfance. waaw waaw bi bi ma demee ba am yegg ay CM2. Mhm. ci laa nag laa bàyyi jàng. ñëw fii di jàng si métier. bu ñëwee fii di jàng si métier. Mhm. boobu sama ñoom papa ak sama yaay yëpp fii lañ nekk parce que ñun ñu ngi si lamsaar fi am nañ kër lépp lépp. Mhm. ci laa ñëw nag post carré fi jàng métier fii. Mhm. sama patron di cogo sey maa ngi koy ñaanal yàlla. yàlla na euh, ñu ngi koy mën a waxatee sax yàlla na yàlla ko yàlla guddal faram wax dëgg yàlla ndax suma papa boo xam te ne def na ci man lu bëri. ay doomam ak sama famille yëpp wax dëgg yàlla. jàng métier ba benn instant bés def naa presque sept ans si yàgg naa ci bu baax a baax. xam naa ci bu baax bu bëri sax te ak grâce moom moom moo tax xam ko. Mhm. dëgg yàlla bi ma dee ba commencé bëre grand combat nag laa arrêté sax parce que làmb dafa ko fiir. Mhm. entraînement suba teel gi ñëw ba bëggee dem gaz da ngay nelaw nga fi nekkee. Mhm. moo taxoon ma arrêté woon entraînement yi ma arrêté woon métier bi. gën a suivre làmb nag. lan nga mës a nekk. waaw ñun caare lañ jóge ok ñun dañoo débuté caare mun naa ne petit combat yu si ëpp fa lañ ko bëree. boobu yaakaar la woon. boobu mun naa ne boobu maag fëgal dong la. ok booy ci lañ ñëw. ñoom mel ni ñoom Sentel. Mhm. ñoom Zazu Ndiaye. ñoom te Zazu sax mi ngi mi ngi Brésil ma koy nuyu. Mhm. ci lañ moom ñoom nekkul li ñëw. booy ci yéen ñëpp ci lañ ñëw si ginnaaw affaire yi noonu. Mhm. nees tamit yàggul noonu lañ parce que ñun ñoo bokkoon ñu départ ne man dimi nuuru fii ñun ñëpp mais après ci lañ ñëw ñoom. Caaroy ñu dem bi ñu demee foofu ba am fa presque ay 3 ans 4 ans mu bëri ay début petit petit combat ba si yàgg. Mhm. mais su jaggur bu ñuy woowee dañuy woowee tur Lamsaar. ok dañuy woowee parce que dañu doon wax ne l'avancée de Lamsaar lañ doon wax booy Lamsaar lañ doon wax booy Lamsaar mais Caaroy lañ nekkoon. mooy mhm. nuyu waa Paare parce que lépp lu ñu am tey jii nii si làmb am nañ ci 50 pour cent def nañ ko suñu. Mhm. muy seen président Baye ma nuyu Ndour maa ngi koy siyaare bu baax. sama mag yi fa nekk ku mel ne Xaarim Ndiaye numéro un Xaarim Ndiaye numéro deux mhm. Ousmane Diop Babi Ndion mhm. grand yi ay Usapo ñoom ñëpp yéen a nekkoon ñun ñëpp suñuy ñooy waay ñun ñoo ñoo ñu jàngal bëre ñoo ñu jàngal bëre parce que dañoo dem ba dañoo dañu bëggaloo seen bopp tey ku mel ni Ousmane Diop dañu doon dañoo am combat dañuy taf si boppam dañuy taf si boppam ba boobu noonu mun naa ne premier combat kii nii Xaarim eh, Ndiaye numéro deux euh, non Babi Ndion ak kii nii ak ak Giri Bordeaux ci laa njëkk a demee stade man ok premier combat ak Gris Bordeaux ci laa njëkkee demee stade boobu ñu ngi doon sol ñu ngi yoroon ñetti paire blouson yoo xam te ne. Hmm. vert la ak rouge blanc ak bleu blanc. ñu joxoon ma si rouge yi nag. Hmm. ci laa demoon stade. Hmm. jour boobu laa njëkk a dem stade. waaw boobu bëreeguñu sax boobu bëreeguñu stade. Tidiane ñëpp xam ne bëreekat nga parce que dañuy gis ni Tidiane bokk na ci boy yi njëkk a feeñ ci làmb tey euh, sa mbapat. nan la demee woon fii si euh, jàmm gën wala fii si Thiaroye sa mbapat nan la demee woon. waaw xam a ñun moom fi ñuy nàmpatal la max da doon tëgg fii ay mbapat fii nii mun naa ne mbër yi mag yi champion yi xaj bi yëpp jaar nañ fi. Mm-hmm. ba ñun suñu génération bi dernièrement bi lañ mujj ñëw. Mm-hmm. mais après ci la mbapat yàqoo. mais max mba mbapat yi mu doon def fii nii fekk naa fi yi ñëw fi. Bombardier yi mel na fekk naa ko fi mu ñëw fi. Mm-hmm. fekk naa fi Tyson Tyson ñoon ndeysaan dem si yàlla si. bi mu bëri ak Modou Awa final boobu final bu métti woon ba. Modou Awa Tine Modou Awa Tine bëri nañ bu métti boo xam te ne. mag saako ceeb la la bëri fa mais fekk fu mu bëri. mais bëri woo ak ñoom. déedéet après noonu ba après nag bëri nañ bëri que jamono jooju noonu ñun bi ñu boobu ñu ngi soog a ñëw parce nees ñu njëkk a bëri ñu fi njëkk a bëri mbapat si mbapat mag si. ak nees waaw. boobu jamono yi da ngay seq bàkk bàkku bàkku eh, eh, bombaaje mu njëkk bi mu doon wax sa lii sa lii ñamal ma ci balaa yaay ñëw. Mhm. boobu nees moo ko doon bëree moo ko doon bàkku si mbapat bi fii nii. léegi bu ñëwee comme ñun nag waa waa koñ bi lañ. Mhm. bu ñëwee dañ ñuy xaar bu ñu duggee waa koñ bi yëpp génn. Mhm. affaire noonu. léegi nag Max da doon wax naan nees boo amee ndam tey bu subaa bul ngemb. jaayal taar affaire noonu xam nga rek comme moom père moom xam na si bagage yu noonu moom moo tax affaire yu noonu lañ doon defee mhm. ñun nag man nag fii bu ma fi bëree parce que naa ne premier combat bi mu njëkk bëri arène mhm. fii bëri maag euh, mbonn mbaay ni ñu koy wax ama seen senior léegi mi ngi Cees sax maa ngi koy nuyu damaa ndax barki démb rek mhm. bi weeru koor bi jàllee mi ngi may nuyu di may mi may woo wax dëgg yàlla ñuy balandi ak suma gaañ la léegi xam nga làmb rek mun naa ne coow yi bëri nii rek mais après ñu ñooy andiwaat après. Mhm. moo tax dara jaru fi dara. Mhm. bu ëllëgee dañ koy nettali. Mhm. looloo tax moom naa ne bëri nañ fii mbapat boo xam ne maak moom tubaar tubaarkàlla suñu bëree dañ ci max dañuy waar nañ bëri daal leen. ndax yi da ngeen a yëngal amateur yi ndax li may bëree ak moom li muy bëree. affaire noonu ci laa commencé di bëree mbapat fii nag. magnése affaire yi noonu. ci la ñoom fëgal a gars yi commencé ñëw bëri mhm. Mhm. ni soit ñu ngi lëmbee làmb. Mhm. tey soit raw nañ euh, Tidiane wala Tidiane raw na xam da ngeen euh, da ngeen daan tasa ci ay mbapatu euh, Père Max ak yeneen mbapat yan mbër nga bëree ñoom mbapat. non bëri nañ ay na mbapat bëri man Balla Gaye mel na bëri noonu lañ mbapat. Balla Gaye ni Balla Gaye bëri na fii nii mbapat nañ demi final. mais dama fi daan. nu comme nu mu demee yéen ñaar seen jàkkaarloo tirage la woon. non ti xam nga boobu jamono jooju noonu maa ngi koy nettali sama booy bi rek toog léegi muy alaaji yam. Mhm. ma koy wax ne bëri nañ fi maag Balla Gaye fii mbapat bi mbapat bu neex bu métti sax na mhm. man ba léegi sax damay contester victoire bi. mais damay wax ne carrément eh. jël la woon rek parce que après moom moo bëri final bi ak Dallo bu caaray. Uh-huh. xam naa ne yow war nga ko mën a dégg. Mhm. mais révélation la boo xam caaray la nekkoon fii. bu sonaloon Balla Gaye sax. waaw ah, sonaloon na ko trop. da ko doon tardé da ko doon waaw. fekk naa foo xam te ne ñaar yoo xam te ne daal mu daan ko. muy Assane Diouf fee ak fii nii. mu nekkoon bête noire bàll ko. waaw non moom moom dafa tolloon ak moom taay. ba pare dafa yoroon benn bëre boo xam te ne neexut yi mhm. muy plaqué. Mhm. day dëbb sol rek dàq ko. Mhm. loolu taxoon bi ma bëreeg moom ñu jox fi Ousmane Diop moo arbitre combat boobu bu caaree. Euh, euh. mu daan ma ci la bëreeg moom. mais taay yoo xam nga ni carrément kii Balla Gaye 2 est-ce que taay yi. xamante nañ baax. moom xamante nañ parce boobu ñun commencé duñ commencé wuñ bëree ma pat commencé bu bëri arène mais dañ doon jéeg quoi parce que boobu ñun suñ naa dem mhm. maa ngi fëgg la mhm. suñ commencé naa dem parce que boobu noonu ñu ngi bëree fii ay combat mbapat ku mel ni Idi Gueye numéro 2 di jarbaatu max doon ko tëgg fii mhm. mais bëri ay combat boobu lay commencé ñëw combat mbapat léegi nag dégg dañ doon dégg suñ tur après dañuy jógee fii dem Guédiawaye di bëri ci mbapatu père Balla Gaye numéro 1 di bëri foofu noonu ay moom Modou Lo bëri noonu ndar fii nii si eh, mbapatu kii nii per Mbaye Gueye bu Faas. yéen bëri noonu dañ muy bëri fii muy bëri fii nii. ah gaa yu bëri ah gaa yu bëri ah. mais Balla Gaye yéen ñaar seen combat bi nan la parce que yow bërikat nga moom tamit bërikat nga te loolu day neex. combat bi da ngeen a jaxasoo yéen ñaar wala du mu demee noonu. non moom est-ce que moom dina ko waxaat sax dina wax dina wax combat bi nu da ngeen. non day neex quoi parce que xam nga ñun ku la man bërikat laa te moom day bëgg tàq man damay may tàq kat. Mhm. loolu tax làmb ji bëri na ba ci suuf nag. Mhm. ci la site bi amee. Mhm. bala ngay kii Modou kii jox euh, victoire. affaire noonu. mais xam nga làmb la rek la te yooyu fàttaliku la. wax dëgg yàlla mais defoon nañ fi loo xam te na trop wax dëgg yàlla. mais après nag ñun ñoo ko njëkk a su ñoo ko njëkk a am coow si làmb parce que da dem tax bu ñu demee géej waaye bëri ji maa ngi fëgala buy ñëw benn su ñi ngi dajeek mi ngi dajeek max maa ngi max ñu ànd ak fëgala moom ak lees de ñuy wax ne max jox ñu jox jox ñu sa ñaari booy yi waaw mais nag làmb xam nga nag noonu lay def garab ci kaw lay fekkante mhm. Mhm, mhm. kon daal mën nañu wax ne Tidiane mbapat na macha allah. non mbapat nañ lu bëri moom bu bëri sax bu bëri bëri xam nga ñu nag ñambat yi ñu fekkee ak yi am léegi bokkut parce que léegi mun naan dañ ñun dañoo ràmpe te suñu génération boobu rek la tey jii ñoom ñoo téye làmb bi. suñu génération boobu ñun ñoo téye làmb bi. boo boo limee di Modou Lo ñoom ñoo téye làmb. te ñun suñu génération boobu la. ndax li ñu doon bëree mbapat la dañuy dem bëree mbapat ba 5 heures du matin. dem ñibbi bu ñu paree lu ñu ci am mburu lañ koy jëndee ñibbi si te dañuy fanaan si si si kii bi samedi lay tombeel man je me rappelle bien sax maa ngi wax ne Cheikh Niang fii lañ doon départ suñu président écrit buñ départ fi doon groupe bu ñëwee ba fii ni dem Assane Diouf. moom moo ñuy jox super xaalis bu ñuy jëlee super. mu jëlee si ñoom ñu groupe woo dem bu ñu demee mbapat foofu noonu su ñëwee diw ak diw ñu ñëw ñu fay leen 3000. ñu bëre kenn daan suñu daanee ñu jël dañ 3000 buy ñibbi si bu ñëwee ba rond-point kii nii waaye waaye damay fàttali tur bi waaye pompier. fa la ñuy dem toog parce que boobu noonu mboq ni muy teel tase duñ gaaw am oto fa la ñuy toog ñii fa la ñuy tëdd nelaw. suñ paree daf gis fur bu gën a jege fa dem jënd fa mburu ñëw lekk. ñu si amul boobu lañ amoon quoi. mais nag tarbiyu la quoi parce que loo gisee escalier da nga ciy jaar. Mhm. pour mën a yegg fenn fi. Mhm. mais ñun ñëpp am na fu mu ñu wax dëgg yàlla. Mhm. waaw parce que booy seet génération mu tey ñëw tey làmb. Tidiane dem nga tamit équipe nationale euh, loolu pour jël ci mbër yombul sa tànn la ñu yóbbu équipe nationale. waaw moom defuñ yàgguñ fa deux ans lañ fa def rek. ñun bi ñu fay jógee Tafa Gueye 2 moo fa nekkoon. Tafa Gueye 9 moo nekk Tafa Gueye dafaa jógee yu ñëw. bi may bëri sama combat ak Dame Kañ la combat bi métti woon lool. Mhm. te Dame Kañ dafa jóge si mook Balla Gaye Balla Gaye daan ko. Mhm. jox ma ko. ñu war a bëree ma ak moom ñu dem Assane Diouf bëri ci jour komba Boy Sey ak kii nii la ak ak Saloum ci lañ combat combat bu métti dañuy bëri xeex ba mu métti ñu àtte ñu ñëwaat dem médecin ñu ñëwaat affaire bu métti bu làmb jeexee bu ma ko daanee ci lañ ma convoqué équipe léegi man bu eggee dañ ne ma yow taay bi ñu la soxla soixante-cinq kilos la. convoqué moom maa Ousmane Tougoulou ñoo fa ne ko ak yeneen boo yoo xam te ne wax naa fàtt naa seen tournoi waaye ay séeréer lañ. Mhm. dëgg yàlla waaye maa Ousmane Tougoulou ñoo fa nekkoon ñoo xam gën nañu xam. Mhm. Mhm. après ba nga fa demee ban catégorie nga kii woon. 65 kilos laa noonu. waaw 65 kilos maa ngi fa nekkoon nag ay Pape Ngatam. maa ngi koy nuyu de passage moom léegi mi si gaal yi léegi. fay noonu ay Pape Ngatam Ousmane Ndiaye ay Youssou Ndour Sama Ndeleng. laay njombar mel ni ngay dégg gaa yëpp la ñu fekk noonu ay malal mel na. malal Ndiaye ah, malal Ndiaye mais Modou Lo ñëwoon na fa sax waaye convoqué dañ koy convoqué. Mm-hmm. li koy soxlaa du ko du ko da koy ëpp quoi. parce que dañ ko doon soxlaa soixante quinze moom day ñëw quatre vingt cinq. te quatre vingt cinq boobu noonu laay njombar moo fa nekk. Mm-hmm. Mm-hmm. après nga dem équipe nationale ñëwaat. ma dem ma dem fa ma def ñef dem fa ñett def fa ñetti sélection dem ñaari yoon Niger dem benn yoon Guinée. mu ñib see laa am fa presque trois médailles d'or ak benn argent ak benn bronze. Mhm. Tidiane beneen bi mooy ñu gis ne le professeur de Lansar lañ la tuddee te ñëpp xam nañ ne professeur Tidiane ñu wax ko ñàkk ko wax da ngaa mën a bëri macha allah ñu gis ne sa premier combat sa premier combat da koo perte mën nga see ñëwaat sa premier combat. ak xam nga comme li ma wax léegi sama waa yooyu noonu nag daf ma yoxosu mhm. ndax dañoo bëree ba fii nii bëri mboq mboq bi métti léegi nag bu ma commencé nag damay fël pour bëri si. boobu Paala moo yor suñ suñ suñuy lissance te moom Pikine mbooloo la nekkoon. boobu Paala Paala Mbeng Mbac Mbono Mbaye ñu ngi koy wax Eumeu Sène numéro 2. Mhm. Eumeu Sène junior Eumeu Sène bu njëkk ma nag. ma ko dëkk Eumeu Sène junior bi. Mhm. ci lañ taxawale suñ combat maam moom moom bëri na combat bëreeti man ma nekk si jànq boo xam ne damay soog a dugg si làmb arène juróom noonu maa ngi fëgale sax ñoo bëri ndoor parce que fëgal da caa bëri gaynde ma bëri faak mbondu mbaay ñu bëri troisième combat fëgal a bëri quatrième combat bi affaire noonu ñu euh, bëre mu nax ma parce que boo xam naa ne boobu xam naa ne carrément kii nandul arène mais ci kaw ñàkk a nand arène boobu noonu lay utiliser loolu noonu daal bi mu dox sama kaw xeex ak man ma remise ma remise ko xeex ak moom di ñu xeex si mu song ma <laughs> laata may xalaat daan na ma parce que xam na ne su ma ko songee làmb ji du yegg. Mhm. dina yegg foo xam du ko bëgg. Mhm. te comme man maa ngi soo commencé bëri arène. Mhm. du ma naan yooyu noonu moom mu xeex man si kaw ma wuyu ko si kaw mu ja mu sàcc ma si suuf. am lu ma métti parce que noonu dama toog bëri fii mbapat yu bëri. lu mot sept combats huit combats laa bëree fii combat ma par kenn daaru ma fi. ñëpp di coow sama tur. may fël mu mu dogaal mu dogaale ma. këpp yalwaan bi këpp yalwaan bi waaw. boobu ñaata lañ la fayal. waaw premier jour bi moom ba premier combat bi 30 000 lañ ñu fayal. 30 000 loo ci def 30 000. 30 000 moom xam nga rek <laughs> gars yi ñoo si jàpp rek wax dëgg yàlla. waaw uh-huh. waaw. sa deuxième combat nga ñàkkat. non non non sama deuxième combat dama bëreeg yeeya. Uh-huh. bu Pikine mbooloo Pikine Nord. Uh-huh. daan ko. te damaa duma si làmb ñu ne ma nga nële. xamoo ko xaw ma ko. mu njool waaw. sëñ Modou <laughs> moom suñ père la. Ah, ah, ah. <laughs> moom moo ko tëggoon damaa ñëw max na ma kee ngay bëreel mu njool sa kaw xees ma ne ko ah. man ma jógee si defet mu jox ma kii. li teel caaf xam ma ne ah waaye damay daan de. ñu ñëwee ma utiliser combat bi yàlla may ma ndam. Mm-hmm. ma ñibbisi waaw. waaw. parce que ñun bëri nañ ay petit combat parce que ñun xamoon avantage bi ñu amoon moom mooy dañoo nekkoon ay mbëri ndaw yoo xam te ne lim grand combat yi dugal la ñuy dugal ñun bëri kopp suñu petit combat maag fëgg la dañ doon taxaw fii ni dég duy ay kaar dañuy yóbbu ñetti kaar ba ñeenti kaar te jamono jooju boobu laamu ji petit combat du yóbbu ay ay supporters léegi nag coow li commencé bëri si ñun saison bi day tijji saison bi day tëj ñu jox ñu trois avance mbaa quatre avance yoo xam te ñu xam kuñ ko bëreel léegi waaw dañuy jox ay trois da ngay gis promoteur bu ñëw joxe verser deux avance mbaa trois avance. yëpp da nga koy xam doo doo doo xam ngay bëreel. parce que dañ la koy jàppee rek. Euh. parce que coow la fa amoon moo tax dañu doon bëre trois combats mbaa quatre combats saison bi. Uh-huh. loolu yëpp waaye léegi xam nga mbër mu bëree benn pon ko rek pare ci. Uh-huh. léegi làmb doy na waar. Uh-huh. loolu tax loolu la ñu amoon avantage bi quoi. Mm-hmm. sa premier grand combat yaroo baax la. maa ngi bu baax. nga ne la instant bi léegi damaa war a mën a wane sama bopp ndax bëri naa ay petit combat petit combat sa premier combat yaa ngi baax combat bu nu am solo parce que dama bëreeg euh, spécial. Sakka waaw. ku bi sëñ Modou ma parce que man samay yu bëri sëñ Modou ma ko tëgg. ok ma tëgg yooyu waaw. ñu bëri maa moom nax ma. daan daan parce que boobu noonu ñoom ñoo ëppoon taay quoi. ok mais nag. sama bëri sama capacité bëri moo fa yeggoon pour bëri ak ñoom. affaire noonu fi ma bi ma daana ma dema ma dem équipe nationale boobu dama dem poids wàññi poids ba ñëw jël combat bi ñu dem ñëw ñu daan ma. léegi ma desewoon si benn si la ñu ma yeggee gars yi ne ma dangay wàññi ma ne non wax dëgg yàlla dama am combat fi mu ne du ma wàññi poids. ci laa yokkee ñëw. différence bi maag lees de suñu combat bi amoon coow coow lu métti. non parce que yow Tidiane ñu bari dañ laa xawoon a mere foofu. Hmm? da nga dugg géejawaay duggaat géejawaay. comme ça Kajoor daan la. Mm-hmm. nga jël lees la. waaw mais xam nga loolu du woon dara du woon dara parce que problème bi moom mooy xam nga làmb sax jour fi muy yegg ak fi ñu koy wax du foofu noonu. bi may jëlee lees de bi may jël saako jot man la nekkoon si man carrément bu ca nekkoon. non saako saako parce que xam naa bëri na. lay problème bi waaye dama dem wàññi poids ñëw. bi ma ñëwee xam nga pour boo wàññee poids parce que da ngay toog 2 mois yoo xam te ne bu sélection bu ñu la sélectionné dañ lay sélectionné pour mois benn ñëw dañ la koy teel avis pour nga wax. pour nga préparer ko ba 65 kilos dama doon def pose 69 kilos. Mhm. léegi il faut ma maintenir sama poids. ba bu yeggee du du ma sonal. léegi nag loolu moo ma doon sonal su ma wàññee sama poids bu ma demee ba ñëw. Mhm. damay bëgg a ñëw raafu te combat ay weer a ci teg. léegi coono boobu moom mooy sonal ba li ma war a am doole dëgg-dëgg du ma ko am. loolay problème moo waral suñ combat maag lees do mu métti. ñu bëri bëri bu métti. te boobu noonu tam dafa jógee yaakaar naa si Modou Lo. Modou daan ko. par mu jël ma nag combat bi métti trop. te combat ba léegi nii damay wax ne carrément am na nii nag coow lu bëri na nii mais wax dëgg yàlla lees de ko tegaatoon ba léegi nii mbaa nga cherché ko da xam ne carrément. tax nga lees de daanul Tidiane. loolu tax nga contesté loolu. non dafa amul sax. comme nan ngeen bëree yéen ña. non bëri bi mu demee woon parce dañuy xeex ma ak moom. comme moom pied gauche la teg man may teg droite. pour bu xeexee ak man nii nii bu yëkkatee droite am dama koy mën a yegg fu sori. léegi jant bu yëkkatee nattee droite am bu dóor ma ko. su ma xàccee pour song day arrêté mais bi troisième bi mu ko defee dama ko song bi ma ko songee dama ko seen dama ko song si tànk ba yaakaar tànk bi laa yem ma senn ko. génn ci poxotaan bi di ko wër bi ma koy wër fii la toog sama kiis bi moo laal. léegi loolu tax bi ma dem naa daan naa ko ba ba toog si kawam. boobu si toor sax moom moo ko ar moom moo ar ma nekkoon siis bi. Mhm. ñu contesté ñu xool ne carrément bi may def action buy tourné ci la sama cuisse bi laalee. Mhm. ñu ne euh, lees daal mais dama ko daan ba toog si kawam. Mhm. ñu ma jóg ñu ne ma da def action bi nga action. sel yi dafa laal. Uh-huh. tax may contesté loolu nu may contesté. déposé woon nga recours. non déposé woon déposé woon parce que dañ ko wax max max ne comme affaire bi am na. Uh-huh. garaawul te ndaw nga affaire yi noonu. Uh-huh. dañ xaaraat leen rek. loolu taxoon. nga bu jógee ci leste nag ma jox am na comme bëri naag combat parce que bu jëlee naag booy jinne après. ok waaw booy jinne. damaa bëri booy jinne. géejewaay. daan ko. noonu ci laa bëriwaat ak daan ko. léegi moo bëri ak daan ko ci lañ ma nag lañ ma jox grand combat. boobu yaakaar na woon boobu maag yaraw baax la. ok mu nekk sa premier grand combat. premier grand combat Ndeye Ndiaye Tyson moo ko tëggoon. Mhm. Mhm. après premier grand combat bi nu mu demee ci yow Tidiane léegi war a jàkkaarloo ko ñeneen ñoo xam te ne beneen phase nu mu demee premier grand combat bi. xam nga loolu sax lu ca nekk moom mooy dafa fekk ñuy jugee caare. ngeen jugee caare. di ñëw di ñëw Lamsar waaw. looloo taxoon mu garaaw. dañoo jugee caare ndax dañoo préparé combat bi ñu jël ko presque 4 mois. Mhm. maa woon combat bu ma waroon bëre. ak Jordan bu Mbour. Mbour. Mhm. bu Mbour. waaw ma jël ñaari avance. war a bëreeg Jordan. Uh-huh. war a bëreeg fi yaroo baax. combat bi taxaw. Uh-huh. ma dem di contact fële caaray. Uh-huh. am blessure foofu. Oh. am par blessure si faar. Jordan Mbour sa combat bi sama benn gaane bu ñuy amaat maa ngi koy nuyu passage Lamsaara nekk fii. moom moo ko mujj bëri. après nga bëri léegi après ma toog presque deux mois yoo xam ne dama toog trois mois dama ko tëdd. am problème faar. bi affaire bi jàllee combat bi des un mois mu bëri. te ku ne xam na ne sportif bu toog entraîné woo. Mhm, da ngay jël poids. ma dem loolu noonu euh, travaillé ma si un mois bi laa nga préparé. Mhm. yàlla jox ma si defet mhm. sama diggante ak yaru baax muy ko sama gaan bu baax la ndax sama grand la boo xam te ne mun naa ne borom baax la. yàlla ma koy nuyu de passage. ma ñàkk ko waaw. boobu nag ci lañ ñëwee nag kalaaf gason yi ñëw. classe bi euh, nan nga ci duggee ndax euh, Tidiane Faye yow su doon bëree rek su ñëwee Tidiane day bëree rek àdduna day day màbb parce que ñu bari dañuy gis bëgg gis Tidiane nu muy bëree ak ni muy waajee ba say chorégraphe sax macha allah lépp euh, kii bi nan nga ci duggee classe bi ak ñaata lañ leen fayoon père Gaston borom classe yi ñu koy nuyu au passage sama xarit. <laughs> waaw nga père moom <laughs> père moom day suñu père wax dëgg yàlla. Ah. ndax dem na ba ñu naan daal fafay dëgg waa Lamsaar. ndax booy seet ñun bi ñuy dugg si classe yi. mu ngi fekk nees dugul mu dugal max dugal ko si clave moom max moo yoroon ak père Jacques ñoo yoroon clave yi mhm. maa ngi nuyu per Jacques Dieng yàlla na ko yàlla xaare àjjana wax dëgg yàlla ah, père Jacques Dieng mhm. père Max moo yoroon affaire ak père Zak Dieng. bi ñu ko yore ñu dugal nees dugal fëgg la Max ma ne da ngay dugg. ma ne ko kan nga may boole ma da ngay bëree ak Jaguar ak Wulli ak Ousmane Touglor ma ne ko du ma. waaw moom mooy suñu pool bi mooy pool A. Uh-huh. ma ne ko nag bëriwuma ak ñooñu. Uh-huh. mu ne ma lan moo tax bëriwul ñoom ma ne ko ndax du ma seen morom. Uh-huh. parce que boobu man maa leen raw. man maa raw Ousmane Toucouleur maa raw lees de maa raw kii nii euh, Mbaye Diouf Fouly ak ak ak kii nii ak Jaguar. Jaguar mhm. kenn xamu ko may bëri moom. Mhm. ñu xëccoo ci loolu noonu. mu boole ma ak Cheikh Niang suñ président écurie bi. Mhm. <laughs> ñu ku ne mu wax ko ñu ne ma parce que sañ morom mënuñ fi nekk lekk avance. di bëri yow nga nekk mbër doo bëre. léegi comme ñoom dugg nañ galaa dugal galaa. jamono jooju nag lañ dañuy jugee jugee jugee jugee di ñëw lamsaar. boobu ñaata lañ leen fayoon ñun ci classe bi. classe bi ñun ñun moom 1 million lañ ñu fay moom. ci la ñoom nees nag fayoo ko 5 euh, millions. Mhm. seen classe bi léegi nag man loolu moo métti parce que le fait que ñu nekk catégorie. Uh-huh. ñoom ñu bëree 5 millions man ma bëree 1 million. Uh-huh. léegi nag loolu moo merloo man ci classe bi. amul heure bu ma entraîné wut. heure bu ma yi wax ma ma ne leen comme demee na demee na nii. garaawul am benn problème. Mhm. ci la préparé combat bi sama premier combat nekk Kaolack. nekk Kaolack. mu Kaolack. Kaolack waaw. maag Jaguar ñuy bëre fu noonu euh, kii moo bëree grand combat bi sax euh, tonnerre ak Moussa Dioum. Uh-huh. ñu bëree grand combat bi yàlla dogal ma daan ko jël boobu noonu gaa yëpp di wax ci affaire bi xam nga rek. mooy sa jël boobu noonu. jël boobu noonu gaa yi di wax rek. macha allah bu yee tijaan gaa yi gaa yi ñuy wax rek boobu noonu rek. mais mais jël boobu noonu. prise ba prise ba ba <laughs> sa prise boobu nga tàkk nag prise boobu noonu tijaan da nga koo woon wala da ko koo prise boobu nan la wee ci yow bëgg naa nga ñëwaat ci prise. parce que prise boobu ñu bari si lañ gën a découvrir tijaan fay. waaw xam nga xam nga prise moom ñun moom. Mhm. comme li ñuy wax rek chaque jour. loo doon sëriñ doon noonu te dégg yàlla ku bëgg a doon mbaax na da ngay da doon dàll problème bi moom mooy ñun dañoo tarbiyee làmb dañ ko tarbiyu man langu ci dégg ci lu ne nag du dem dafa gàtt ñemewul lu ne dégg naa ko ci affaire bi ni ñu débuté xaw a benn instant coow lu bari ci man nag ma gëm gëm sama bopp ba pare gëm entraînement moo tax ñi ma doon bëril fii ñoom ma ëppoon doole foofu waaye fu ñu jàppante da nga ne ëppuñ ma doole